bismillaahi rahmaani rahiim sama manut géej tabbi ci biir géej julli ci biir géej basiiru mbàkke sama manut géej tabbi ci biir géej julli ci biir géej basiiru mbàkke ba muy tabbi géej jubóog borom géej moo tax mu not géej Basiiru Mbàkke ba muy tàbbi géej jubóog borom géej moo tax mu not géej Basiiru Mbàkke ña fekk démb xam nanu démb naw nanu démb sa maam ja Mbàkke nun ñëpp sunu maam réerewul sa xam nan ne sa raw na da Mbàkke nu népp sunu maam réeréwul sa maam xam na ne sa raw na dambake sa maam du morom ëpp na morom romb na morom basiru mbake wayla war na ma bamba sas na ma bay ko war na ma basiru mbake yow am nga tuuma ji tuuma baa xëy tuuma Basiiru Mbàkke ñëpp a ngi lay jëw maa dégg sab jëw ma wax sab jëw Basiiru Mbàkke am nga kilifa déggal kilifa nangul kilifa mooy jëw bi Mbàkke ñëpp na yaa baax ma jóg yaa baax xam naa ne yaa baax Basiiru Mbàkke yaa ka xam lu baax yaa ka man lu baax yaa ka def lu baax Basiiru Mbàkke yaa am mag ju baax déggal mag ju baax nangul mag ju baax Basiiru Mbàkke tey moo di Bamba yor kàddug Bamba jël kàddug Bamba jox la ko Mbàkke sa mag ji yombul xam nga ne yombul am nga ku yombul Basiiru Mbàkke man na lu yombul def na lu yombul sa cër bi yombul Basiiru Mbàkke Basiiru santal yaa jara santal ñëpp la santal sa mag ji Basiru santal yaa jara santal ñëpp santal sa mag ji Mbàkke ñëpp nga jubool nga déggool nga maneel Basiru Mbàkke Bas Abdu yaa wane ab ñu jàppe lab yar jombu ku baax dala yar nga jële cab yar yaa rafet yar Basiiru Mbàkke am nga añab yar añal añab yar may ma añab yar Basiiru Mbàkke li jiile sante ko jiile yow doomi jiile war na la doomi iliman mat nga iliman roy nga iliman jumaanu Mbàkke doo gëdd kenn doo janni kenn doo noonu kenn Basiiru Mbàkke amoo yaranga doo am yaranga kay am yaranga du yawe Mbàkke sëtu ci Mbàkke doomu ci Mbàkke Basiiru Mbàkke lii cër la Mbàkke sëtu mbuusube doomu mbuusube mbokku mbuusube lii cër la Mbàkke maa dem ba Baxdaad siyaare Baxdaad leer ga fa rëy na da Mbàkke baxdaata kaanaat li ko taxaanaat mooy kaka suuxaat basiiru mbàkke baxdaata kaanaat li ko taxaanaat mooy kaka suuxaat basiiru mbàkke yaa sëtu ciy may yaa doomu ciy may yaa donnu ay may basiiru mbàkke romb nga ak may weesu nga ak may da ngay may may Basiiru Mbàkke ma bëgg ak may ma tollu ci may sedd ma ak may Basiiru Mbàkke yàlla nang fi yàgg sa yéene àgg say pexe àgg Basiiru Mbàkke yàlla nang fi yàgg sa yéene àgg say pexe àgg Basiiru Mbàkke